Mamadou Ba la sa kër la. fii sama kër la waaw bi eh, ndox bi bu mu ñëwee amoon na an benn année deux mille deux mille quinze bi nii la meloon am nañu jóg mais ñun ñu naan ñu bokku wax nañu boo sonn ñu naan bokk nañ si mais aw ñoom bañ nañu tey moom yooyu yéen ñoo gisal seen bopp depuis loor nag man ak boobi ñu ngi dox loolu def nañu mairie def nañu préfecture def nañu fu ne pour ñu am moto pompe rek pour euh, kër yi kii noonu mais bu léegi awa gisuñu moto moto pompe bu léegi fu ma taka ak yow ah, tey la tey tey la jeudi gisuma moto pompe bu léegi léegi nag yàlla def na ne aw bu ndox bi bu ñu sonalee mu ñu xam nga nii moom nit mu dul dëkk aw ñu doog ñu woow ñu doog ñu woow si bâche yi ñu dem si bâche bâche yi man bâche yi moom aw ñu nekkin foofu baax na quoi mais kër yi suñu kër yi maa ngi ñaan état bi eh, état Sénégal nañ ñu dimbalee te yàlla rek tax ah ñu defal na fii assainissement wala wala wala wala wala bassin ñu ñëwaat suñu kër moom la ñu ñaan si boobu moom moom da da ñaan noolu sonn nañu daay nañu depuis 2015 ba léegi nii la ñu dekkee nii lañ def chaque chaque taw lii lañ lii lañ def mu ju am daawul woon def nii nag mais ren moom comme ren moom eh, dafa jéggi dayoo dafa jéggi dayoo sonn nañu sonn nañu taay nañu def nañu lu ne léegi ñu ngi ñaan état Sénégal te yàlla rek tax nañu dimbale te tax na mu may kër yo hokkam galle président Macky Sall hokkam galle mi Mamadou Ba yo hokkam galle mi tampi mi tampi min tampi komin komi komi miskineɓe yomin tampi lii moom dama ko wax ci wolof eh, ci pulaar ndax Macky te yàlla rek tax añu dina li ndok bii benn yoon ñu jeex moo gën a après dem si nii nangami nangam suñu dëkkee si bâche yi duñu jóg ceeb ak duñu jóg diwlin jug ju yàpp ak nangami nangam loolu sa tuul loolu sa tuul dañu sonn rek ñun ñu sonn léegi nañu defal assainissement mbaa ñu defal nu bassin ndox bi di dem ñu defar suñu kër ñu dimbale ñu defal suñu kër ñu néew dëkk loolu rek lañ loolu mooy wàgg bi ci biir bagage yi ëpp na 500000 yoo xam ne daal ikii foo mat ñetti lal yoo xam ne daal lal bu nekk après 250 eh, eh, ak armoire am yëpp yàqu na tout yàqu na suñu matelas ak suñu am na suñu benn kàttan yoo xam ne dal awa mu si faatu parce que bi faatu na dafa lee ci ci foofu loolu yëpp ay coono la rek dama ñaan rek te yàlla te mais gis ngeen ndox bi moom wit gis bo wit gis bokkul gis ngeen ndox bi gis ngeen bagage bi nii lañu dëkke woon dañ doon ŋàcc ba léegi mënutuñu ŋàcc léegi mënutuñu ŋàcc c'est impossible léegi gis ngeen nii nii bàyyee amuñu sax fu ñu def bagage bi xoolal ndox bi fu mu fu mu yem si man léegi nag ñun dañoo ñaan yàlla ñaan leen te yàlla rek tax dimbale ñu te yàlla rek tax defal ñu assainissement loolu rek moo si moo moo moo moo moo dimbale bi dimbale boo xam ne daal awa dootul am moom lañ ñaan état Sénégal dimbale ñu te yàlla rek tax lii jóge liy jógee fii sonn nañ ci yenn aussi encore sonn ngeen ci sonn bi yëpp su ngeen su fekkee yàlla dimbale leen di ngeen dimbale ni yàlla leen dimbalee loolu lii lii dañ ci Sénégal lii dañ ci Sénégal moom la ñu ñaan yàlla Macky nag comme lu ma la wax nag jimi ndoka kam ko gàlle mi tampi min tampi sonn nañu daay nañu sonn nañu daay nañu dimbale leen rek te yàlla tax defu leen ko de yàlla moo ko def mais comme que yàlla moo yol ñun yàlla yàlla war gin ci ci ci nguur ci moo ci yéen lañu ñëw ngeen jooytu leen dimbale leen ñu te yàlla rek tax sonn nañu sonn nañu de mill 2015 ba léegi chaque année nii nii nii nii lay mel chaque année nii lay mel am nañu naam am nañu jógee mais bu léegi des na bu léegi des na lu des si chaque moo gën a bari waaw fii bu quartier Dubalès quartier Amdalaay quartier lépp waaw yëpp nii la nii la mel nga néeg bi lu mu mel bii bii bii nii la mel salle bi nii la mel bagage yooyu yàqu na awa ni yeneen néeg yi yëpp basa bagage bi yàqu na xoolal néeg bi xool leen ëtt bi fii laa doon jullee bu njëkk bi fii laa doon jullee amul doon fu mu toog nañ une semaine te julliwuñu donc bi bu mu ñëwee toog nañ une semaine di julli wuñ man dañu mujjee def lii ñu julli fii léegi bu ñu bu ñu demee boo boo moon kii après eh, mairie bi woow ñu dem si ñu doog dem si bâche yi macha allah bâche yi macha allah baax na mais dafa am lu ko gën lu ko gën ngeen noppalu ñun ñu noppalu loolu moo si gën ngeen noppalu ñun ñu noppalu naam ñu ngi lekk foofu ceeb ñu ngi lekk foofu ay lu ne mais mais mais mais mais du ki du eh, du du du du du du mujj du nekk rek naturellement kon da ngeen sonn ñu dañu sonn léegi nag. état Sénégal maa ngi leen di ñaan te yàlla rek tax te yalla rek tax te yàlla rek tax dimbali ñu te yàlla rek tax soono bii métti na de métti na si ñun ngeen xaman ne su fekkoon ne amoon nañu doole yoo xam ne daal awa nañu dem feneen du lii balaa ngeen di ñëw ñu def loolu mais amuñu ko yàlla wërsëguñu ñu ko yàlla wërsëgul yàlla yéen ci yéen la ñu yàlla wërsëgil ci yéen la ñu yàlla wërsëgil comme yéen la ñu wërsëgil ñu rëy ñu rëy ñu ñëw si yéen pour leen ñaan te dégg naa aussi encore ñu naan ne da ngeen di dëkk ci dog déedéet dëkku ci nag temps bu ñu nekk fii man kër gi temps mu nekkoon fii joor bi ci jënduma si jënduma eh, suuf ci joor bi ci kër bi laa la la la la door sama birig defal sama kër gi booma bi su ma xalaatoon lii dama néew doole du du ma dëkk fii du dëkk fii du loolu du ma dëkk fii du noonu du noonu bu leen gisee noonu xam ne daa am ñoo xam ne gisee noonu gis bu leen gisee noonu kenn du gis yoo xam ne daal nga néew doole nga am sa fanweeri julli wala sa sa sa un million nga def si nga def si lii kenn du def loolu peut-être erreur rek loolu moo dal du leneen moom du moom lu daal léegi nag gis ngeen ko bii bii ëtt boo xam ne daal fu mu doon julli bii troisième deuxième néeg bii la mu ngi nii xoolal bagage yi télévision yi xoolal télévision yi ak kii yëpp yàqu na ordinateur sama doom bu yoo xam ne daal awa eh, da doon jàng léegi awa mu ngi nii ordinateur yooyu yàqu na làkku na yàqu na yëpp ñaari ordinateur moo fi ak ak benn télévision yooyu yëpp yàqu na ak beneen lal bi ak beneen armoire bi moom awa eh, eh, kii nañ ko yóbbu nañ ko boobu moom awa sañ nañ ko parce que yàqu na ba mu yàqet waaw ba mu yàkkee gis ngeen ko lii moom gis weddi bokkul mu ngi nii gis weddi bokkul si bii aussi yaa ñaari télévision ak benn ordinateur ñaari ordinateur yooyu yëpp yàqu na fii lañ ko bàyyee ñun ñu si ñu ngi si ñu ngi si bâche yi parce que mënuñu dekk fii fii côté bi la fii côté douche bi la xoolal xoolal ndox bi ndox fosse bi ak ndox douche ak ndox kër gi yëpp awa maasale na voilà fii mooy côté douche yi fii mooy côté douche yi yëpp fees na kenn mu nu dugg foofu gis ngeen ko gis ngeen ko kenn mënu kenn mënu dugg foofu beneen néeg bi mu am na beneen néeg bu si nekk gannaaw boobu aussi encore kenn du dugg foofu ak douche foofu ndoxu foos bi douche bi awa di jàppan li yëpp ndoxu foos la ñu jàpp yëpp ndoxu foos la bii mooy troisième quatrième néeg bi xool leen ko yëpp jàpp na gis ngeen ko mu ngi nii mu ngi nii bii yëpp kii na waaw bagage bi benn benn benn benn benn benn bagage boo xam ne da aw mu mu ci jël fii benn bagage lu ñu ci jëli fii nii la nii la mel léegi nag comme que awa yàlla def na ne awa ñun ak yéen ñoo dëkk awa nit moom soo demee amee problème rek da ngay dem ki nga yaakaar nu kenn bu dul yéen bu dul yàlla ak yeneen bi ak yéen ci yéen yàlla ñu yàlla dénk ngeen ngeen déggu sama wolof bi la wolof bi moo leerul te su mu waxee wolof am na yoo xam ne daal aw awa dégguñu su mu waxee pulaar am na yoo xam ne daal awa mënuñu dégguñu pulaar mais da ngeen jéem comprendre sama kii bi rek lii moom gis ngeen ko journaliste yi ñu ngi taxaw te ñoom ñoo gisee boppam ñoom xoolal seen tubéy ak yëpp tooy na li moom awa eh, eh, wetu ko léegi nag wallaay awa eh, état Sénégal def ngeen de mais lu yàqu moo bari lu yàqu moo bari lu yàqu moo bari comme que yàqu moo bari te amuñu fu ñu dem budul yéen encore une fois dañu dellu si yéen rek yéen la yàlla teg yéen la yàlla teg yéen bi yéen yàlla teg yéen bi kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñun ñi ñun ñi am coono yéen ñi ñu dindi ñu coono bi yàlla neen yàlla may kattan ak jubo ngeen dimbale ñu ngeen dimbale askan bi askan bi sonn na de lii moom du politique du dara lii réalité la lu am la du politique du dara moo am moo am réalité la du question aw inventé wala nangam nangam déedéet amul mu ngi ni mu ngi ni gis ngeen ko sama sama ak ak bagage yi mu ngi leen gis ngeen kër gi lu mu mel kër gi lu mu mel yëpp kër gi yeneen kër gi yëpp noonu la mel fii mooy daaray kaamilu quartier Mamadou Lamine Mbengue daaray kaamilu rukk bii sonn nañu loolu sonn nañu loolu. waaw courant daal moom moom la ñu amul moom courant moom dañ ko manqué la loolu ay poto la ñu soxla ak canal bu ñu def fii ci ci ci daaray kaamil ci quartier bi daal moom la ñu soxla ku ñu ci dimbali rek te yàlla tax. ndax daal bu guddi jotee sàcc yeeg adversaire yeeg yépp dafiy daje ñu sonn bay bëgg de yooyu sonal na lool te ñii suñu dëkkandoo yu baax la suñ sañoon tey ji duñu génn fii ndax dëgg yàlla daare kaamit ak su kàcce bii nga xam ne suñu juróomi kër yi ñëpp benn lañ ku bopp metti ba sa bopp metti na ba fi Mamadou Ba muy jógee ñëpp la metti ndax day suñ kilifa gu baax boo xam ne moo yore suñ koñ bi nii lépp lu ñu jaaxal euh, nekkunu fi bu ñu demee su gannaaw lépp dañu koy defal kon boog ñu ngi koy ñaanal lii ko dal nii di suñu dëkkandoo yàlla tegg ko ci kàttanu borom bi te ngeen may nu canal canal la soxla ak jàppale ñi nga xam ne dañoo nekk ci ndox mi sonn lool nag ku nu ci dimbali daal te yàlla tax moom la ñu bëgg jàppale leen jàppale leen te yàlla tax. ndox mi daal mu ngi nii yéen a ko gisal seen bopp doy waar rek ndox mi moom bari na trop bari gi foo na foofu. passé na foofu ndax gis nga nii gis nga koñ bi ni mu mel benn xale nekkatu fi ñun ñu nga xam ne ñoo fi yor ay doomi ndaw suñu doom yi ñu ngi ci tant yi sama yaay moom laa mujj obligé mu dem ci tànt bi ak xale yi ndax sama doomu ndaw bi nga xamante ne moo fi nekkoon dafa daan ci ndox mi te dafa as nekk asthmatique bari ki laa dem yóbbu ko hôpital ngi ne ordonnance yi moom laa jëndi woon togg añ sax mënuñu ko ndax foosi yi na ak ndox yi te ndox mi yàgg na fi mu ngi nii ñetti kër yaa nga ne yaa jàkkaarloo dara ump la ci sonn nañ torop ku ñu dimbale ñu jël ku ñu dimbale ñu jël ndax xam nga ay mun ñoo dëkk ndox te gisuñu kenn ku ñu wàllu mbaa ku ku ñu ku ñu ne léegi nag ku ñu dimbale nag ñu jël te yàlla rek tax te xam nga dëkk ndox mu mel ni mu vert nii ay ñax lu nekk nekk ci xam nga lu nekk mun na cee nekk metti na waaw ku ñu jàppale nu ñu jël ci fii amut làmp boo xam ne mën ngaa xool da ngay risqué rek di tëñax tëñaxi waaw ci risqué daal lañ nekk ku ñu jàppale ñu jël ku ñu dimbali ñu jël sonn nañ torop ñoo ngi dëkk ndox bi moom nu dëkkee ndox bi dëgg yàlla moom neexuñu suñu sañoon yi tamit ñu am loo xamante ne nit ñu mën a yëkkatil ndox fii balaa ñoo def leen lenn dafa mu nekk ndox bi mënoo cee def lenn fu mu nekk dëkkandoo yi ñooy mujjee di togg di ñu indil ñu ciy lekk te xam nga ne tamit loolu dafa metti xale yi dañ leen mujje jël ak yenn maire yi nga xamante ne ak paa yi nga xamante dañoo xaw a feebar wërëri ñu yóbbu leen ci bâche yi ñun ñu xaw a dëgër ñu daal di fiy des te loolu tamit xaw naa metti fu mu ne da nga mujjee obligé bataleeg sa sa dëkkandoo bi nga dendal bu toggee bu tibbal la indil la loolu lépp metti na ndox bi mi ngi nii kenn loo xamante ne dafa nekk loo xamante ne kenn du ko woon nit ñëpp ko gisandoo te lu ñëpp gisandoo nag war nañ ci mën a sumbandoo ba mu mun fee jóge waaw mi ngi nii doomu kii moo fi daan démb te dafa asthmatique wax dëgg yàlla ndox mi moom sonal nañu torop wax dëgg yàlla ñu amoon daal lu ñu si mën a jàppale daal ñu jël waaw di leen di sant nag di leen gërëm yéen ñii fi ñëw waaw yéen ñii fi ñëw ñun na gisuñu kenn gis nañ leen nag moom moo tax il foog ñu sant leen gërëm leen waaw sant nañ leen gërëm leen parce que ñun boobu ba léegi ñu ngi jooytu gisuñu fi kenn waaye yéen de gis nañ leen ñoo ngeen fi jox jox jox ngeen ñu ñu wax wax suñu kàddu yoo xamante ne mënu dem fenn waaw waaye ñu ngi leen di ñaan ngeen jottaluñu suñu kàddu ba mu yegg ca président mu déggal ñu mën ñoo fajal suñu soxla lii ndax fu mu nekk nii président daal soxla nañ ko lool mënuñu koo jot nag mënuñu ñaan fenn audience waaye muñ comme yàlla dimbali ne leen ba ngeen ñëw fii ñu ngi leen ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaan daal président daal mu mu yónni ay ndawam mu ñëw fii jàppale ñu ci ndox bi ndax wax dëgg yàlla sonn nañ ci ah, ah. waaw ñu de bu ñu amoon ci kër yi moom moo ñu gënal sax ndax ndox bi day dox ña nekkoon fii ci kaw yëpp ñoom tuxu nañ ñëpp yooyu yëpp barax bi yëpp ay ay ay ay tuxu nañ ñun kay suñu suñu amoon fuñ ñu dugal kay sax moo ñu gënal wax dëgg yàlla suñu amoon feneen foo xamante ne mun nañ faa mun nañ ñu foo yóbbu moo ñu gënal parce que ndox bi moom wee at bu ne day gën a yokk fii moom mooy daare Kaamil kàcce Momadou Mbengue. waaw parce que boobu ba tey sax ñu ngi dox si ndox bi pour mu jóge fi mais moo tax ma gis leen sax pour wax ak yéen pour ndax parce que fii gisuñu fi benn autorité bu nga xam jàppale nañu si ndox bi gisuñu kenn depuis boobu ba tay ñu ngi siy dox mais gisuñu kenn ki nga xamante ne jàppale nañu si mais ñu ngi ñaan daal comme suñu si mën a jàppale mu juge fi ñu jël ñu ngi koy ñaan bu baax a baax a baax parce que autorité yi bëri ñu ngi fiy ñëw mais dañuy romb dañuy romb ñun daal dafa mel ñu bokk ñu sax si Kër Massar dafa mel sax bokk ñu si Kër Massar gisuñu daal suñu bopp daal si si Kër Massar boobu gisuñu ko dañuy ñu ngi obligé sax di dem yëmbal pour xool ndax na dañuy mën a obligé pour ut moto pompe boo xam ne dañ mën a wàññi suñu ndox bi mais mun ñoo gis kenn kenn koo xamante ne mën nañoo jàppale si ndox mi te loolu dañ koy métitlu bu baax a baax dañ koy métitlu dafa mel ni ñun bokk ñu sax si commissaire laa lay laa lay wax nii kenn koo xamante ne dinañu jàppale te bëgg nañ comme ça tey yi ñu tey ndax parce que fii su nekku sax su maam si mag ñi sax si xale yu ndaw yi xam ne ñu ngi fi ñu ngi fi yeewoo di dund si ndox bi fii ay jaan ak yëpp a ngi si biir si biir ndox bi fii ndox yi dañ fay fekkante ay année année ñu ngi fiy fekkante gis nga ñax yi nu mu toll nii moo lay wan ndox bi yàgg na fi ba sa waa ji ngi wane ne moom fii la dëkkoon moom ndox moo fi jëlee xam nga ne loolu yàgg na yàgg na te bëgg nañu jàppale ñu bu baax a baax si si lii daal. ban appel ngeen di lancer solennellement pour ñu taxaw leen ci lii. la leen bëgg exactement. waaw actuellement nii soo xoolee woon li ñu lancé moom mooy leen rek ku ñu dimbali si lii su nekkee maam dañuy maam dañuy jox comme yeneen kër yoo xamante ne mën na ko remplacer wala soit ñu defaral ñu fii ba nga xamante ne ñun dañu fi mën dëkk mais chaque année moom si lii la ñuy dund.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 par sénégal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.